asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi ñoo ngi sant yàlla di am mbégte baax a baax a baax di ànd ak yéen ci dëkk bu sell bi ñu ngi ànd ak euh, waa kër Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru nga xamante ni ah, euh, xalifa bi moo am yoon bu mu yeble fii ci euh, dëkk bi di Touba ci liggéey boo xam ne bu amam solo doon liggéey boo xam ne Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru moo am tool boo xam ne mu ngi ko commencé woon ca xilaafa ak Serigne Mamadou Fadal Mbacké di ko jox képp ku fi toogal Serigne Touba ndax danoon tool bi toolub Serigne Touba la ku fi toogal Serigne Touba jël bi rek yow lay jébal tool bi saa bu ko bayee ba tool bi noppi nag mu daal di euh, commencé dajale ay maajaalam da ko ci dolli ba mu doon lu takku mu ñëw jébbal ko ki fi toogal seex Amadou Bamba Khadimou Rassoul ñu jëbal ko tool bi ci daaw ren ji ñu ñëwaat ngir jébbal ko tool boobu loolu moo waraloon ñu ñëw yoon wi jógee daaru kan man xoroje Cissé jaar nañ Passy fekk fa euh, njaboot gi ànd ak yenn seexi seex Moussa yi ñu daje foofu ñëw daal di ko ñëw fii Touba Diassigane kër Cheikh Abdourahmane Niang ànd ak moom ñëw fii ci kër xalifa bi lan moo waral teewaay bi fii ak cosaanam ak nan la demee. salaamaaleykum wa rahmatullah mu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di leen dokkal baax baax suñu teewaay fii nag tey mooy nañ fi daan teewee rek muy liggéey boo xam ne Cheikh Moustapha Cissé moo ko tàmbaloon ca dundam di tool boo xam ne doo ko bayloon Serigne Touba te depuis booba léegi ñu ngi koy bay di ko indil Serigne bi loolu nag tey mooy li ñu tax jóg jit ñëw joxe addiyaam boobu leen ak mboolem njobootam yeesalaati sunu ànd ak moom ci zahir ak ci baatin loolu nag mooy tànk yi diyaaru ko ndokkel ko jëbal ko sunu liggéey bi nga xam ne léggéey gënu ko sell li nga xamal ne sëriñ Alaaji Kéba Cissé mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Moussa Cissé moom moo ñëw eh, ànd yebal rakkam ji ñuy wax sëñ Aliou Cissé ak sëñ Adama Cissé ak sëñ Moudou Mamoun Cissé ak Cheikh Saliou ak Cheikh eh, eh, Abdoul Ahad ak Cheikh Issa doom rakk doom si Moussa yëpp ñëw nañu ah, ñu indi nag liggéey bi nga xam ne moom lañ liggéeyal sëñ muy tool bi bi nga xam ne moom lañ doon liggéey muy àllarba ji hmm, ñoom nag li tax ma jiit leen fii ci sëñ Tuubaa la bàyyeekoo seen maam sëñ Mor ma ma ma xuróoja Mor ma xuróoja moom la sëñ Tuubaa boole loon ak sama maam Ahmadou Fadiama Niang moom moo ko moom la ko tarbiiloo moo ko tarbiyee ba wàcce ko ne nag dama lay jox mbuus nga wulil ma ko nooy lii dem ci muus maa ko ciy def moom la ko sëñ Tuubaa wax. am ko terminé ba ba mel na war a mu indiwaat ko sëñ sëñ Tuubaa ne ko mbuus ma doon wëli loolu mi ngi nii noo makkanoor mu mu Sëriñ Tuubaa daal koy def lam daan def ci ñam daan terbiye ñëpp mu def ko ci moom daal ko yebal Saalum nag mu neefa toj Saalum gépp la ah, léegi nag mu am doom joo xam ne nag mooy sëñ Moussa Cissé ay njabootam nag bari nañ sëñ Issa ak sëñ Saliou ñëpp waaye sëñ Moussa moom da cee am xaas joo xam ne ndax baayam moom la doon moom la daan yabal ci Serigne Touba mu di ko fekk njaareem nga xamne da danaan ya-, yanu ay gambi lex gambi lem ak eh, boole ko addi jëm daan yobbu di ko yóbbu ci seigne touba te bu deme itam da ko da wax ko loxom ak loxo seigne touba rek du ko du nangu mu jaar ci loxo ken bo bu seigne bi mësaa yëg ne ñew na rek dana dana dana ko dalal eh, mu jël eh, addi ji ak lem ji tek ko ci loxo seigne touba lola nak moy xaas yi nga xamne amna am ko ba mm, mbirum ni mu mel ci kaw aduna nga xam ne fii ne ay junni junni junni junni taalibe ñoo topp ñoo ñoo ànd ñoo topp ci moom nag eh, ñoom ñett ñoo fi ñëw tey eh, ci eh, xalifa ci ci ci ndigalul xalifa bi alaaj Keba Cissé day mag léegi ba muntu ñëw mu yebal sëñ Aliou ak sëñ Adama Cissé ak sëñ Modou Mamouna ak rakkam yëpp rek rakk yi doomi sëñ Moussa yëpp ñëw nañu daal ñëpp teew nañu fi ñu indi seen addiya yi rek dégg ngeen sëñ bi ne ñu dalal fii moo waxoon ne moom moo waxoon ne ma na ñëw altiné né lañ fi onze heures fekk ñëw nañ nak kim ñu bolo mi maam Mor tam ne moo ñu wax ñu mo ñu dal fi ne ma ngay wax señ bi ne ak señ bi. Cheikh Moussa ngénam Cheikh Moussa sëñ Touba la am Touba yonent bi la am yonent cale la gi gudd tabarakallah jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf sëñ Souleye Niane jërëjëf gërëm la da ca tegee dégg na la nga def. mënoon nga maa woo téléphone wax ma ko waaye bu baax dana leneen lay niru waaye nag dégg naa ko te la ma dégg gënal na ma lool te xam ne kooku ku ko ne saat baaraam xam nga lu ma bëgg nga teg yaa rafet yaa baax Modou Ngom. foo dëkk yow. foo dëkk yow. Sagata Sagata. ah Sagata. kenn du bismillah jël rajo bi nga toogal baax a baax toogal baax toogal baax mu yàgg jaarale ko

ñu ngi leen di nuyu ci turu dañ Aliou Cissé ñi nga xam ne mooy rakk xalifa de Alaaji Jabaat Cissé ak mbooleem jabootu Cheikh Moussa Cissé ay doomam ak i taalibeem ñëpp ñëw nañ mbàkk di la ñaanal nga lool te lool lépp lool naal yan na ko matal ay seen lu jeex saa si doon bàtt bàtt Xaadimu Rasuul waa daaroog mboolem ñu bokk ci Moussa ñew nañu di la kel di la ziyara dellu ci liggéey bo xamne tolu andar bala la buñ daan bay wax wu ne moom lañ jébbante nii incha allah di la ñaan bi yàgg lool ko wér taalib yëpp sant nañ la gëreem nañ la xalifa baax lay sant di la gëreem lépp lu la mos a ñaan ci dëkk bu amna yoon ñu ngi koy defar courant ñew na ndoxal fa lepp nga fa ñu ngi lay sant di la gëreem di la ñaanal xam nañ ci yéen ca dëkk ba yal na yàlla matal ci yéen ñu ngi lay jébbalaat suñu bopp zahir ak ci baat yi di la bàyyi loo xel suñu bopp ci zahir ak ci baat yi déglu parce que jaar say ndigal ak na ko bëggee ci loolu lañ nekk Cheikh Ahmadou Ba seen Mbàkke la nga waxoon sax Moussa Diouf na ko naa la fàggu loo xam ne boo ko doon fàggu te xel bi te jot fàggu boobu yëpp ci yow la yàlla ba tey barke gis nañ suñu bopp ci yow gis nañ bopp ci sëñ Tuubaa gis bopp ci yoonu murid loolu yëpp sax mbaax la te laa biir la te bëgg sëñ Tuubaa la kon nag ñi sa gannaaw ci saayir ñi sa gannaaw ci baat yi loo mës a dégg rek ci ndigal lañ jëm ci saayir ak ci baat yi Mbàkke ñu lay ñaanal di sant Abdourahmane Mbàkke sëñ Abdourahmane Ñaŋ ñu ngi àndal di ko gërëm mooy itam ku am ñu tele ci ñun ba léegi noppaluwul te yaram yi dëgërul kon ñu lay sant Mbàkke di jégul rek ci yàggaayu jotaay bi xam nañ fi nga toll xam nañ nit jotaay ñu mu méttee kon loolu ñu ngi ciy jégul Mbàkke dina la delloo joxaat suñu bopp sëriñ baa ngi nii moom la si àlaaj ceebaa yebal mu ngi si Aliou Cissé jógee Dakar ñëppañ ci gannaam nag sëñ Modou Mamoun sëñ Adama Cissé sëñ Omar sëñ Abdou sëñ Khadim ñëpp ñëw nañ ñëpp di doomu Cheikh Moussa Mbacke ñu ngi nii tàllaat suñu loxo di la ñaanaat nga dolli ay xewal ci ñun dolli abarkal ci ñun ci ak ci baati jataay bi rek dana na sëkk Cheikh Aliou yaag njaboot yëpp ak tàmbalee ci sëñ Kayba ma ngeen bàyyi ci kër ga ak njabootu daaru yëpp njabootu Cheikh Moussa yëpp ni ngeen àndandoo ñëw ci kanam sëñ bi nii ak ñëwin mu rafet bii bu Pastef bii sëñ bi da koo yëg te lii ngeen wax lépp da ngeen ko fekk sëriñ bi te leen jàppal ko leen sëriñ Touba gu yàgg sëriñ Touba ak sëñ Mor la woon sëñ Moussa ak sëñ Basir la woon te sëñ Mountakha mi ni mu àndeeg yéen ak ni mu dundale ko leen googu ak ni mu ko seqee ak ni ngeen ko yëgee ak ngeen ko jàpp dundee loolu rek la sëñ bëggoon ngeen xam ne sëriñ bi jàpp na leen ci xolam jàpp ko sari bu mu fas yéene ànd yéen liggéey sëñ kon bu ngeen ànd ak njaboot gépp ñëw ci wetam loolu lu mu yëg moo tax sëñ bi leen doon leen nuyoo bi nee na mi nee na yëg na taxawaay bi te gis naa ko waaye noonu rek la Sëriñ Tuubaa xam nañu aw yoonam bañ ko gisee ba nañ ko noppee gise sëriñ bi daa wax ne Sëriñ Tuubaa bañ ko gisee ba nañ ko noppee gise boroomam rek mooy yitteem ci boroom rek la nekk ak yonent bi. yàlla jox na ko may gu rëy. nee na ko may gu rëy. moom la àndaale. waaye lépp bi mu ñëwee. da teg fee. da jaar ca na ko yonent bi ko jaar ca nañu ko na mu ko tëralee. sunu si yonent bi. ba niñ ko noppee gisee. dafa boole wuy ci ndigal. dafa boole wuy ci ndigal. ba mu mat sëkk. ba mu mat sëkk. boole ko may gi ko yàlla may. boole ko may gi ko yàlla may. mu boole lépp. mu boole lépp. delloo ko boromam. delloo ko boromam. nee loolee ci la nekk. ba niñ ko noppee gisee. kon nag li ñuy noppal. kon nag li ñuy noppal. gis ñu ndam. ci sunu ndam. yoon woowu awoon. yoon woowu Serigne Touba awoon. ak lu mu ko tële tële. ak lu mu ko tële tële. nañ ci jéem a aw rek. nañ ci jéem a aw rek. bañ a taxaw bañ a gees. nee loolu rek la. wéetal yàlla. wéetal yàlla. ak jaamu ko. ak jaamu ko. ci sunu yonent bi. wéetal yàlla. wéetal yàlla. ak jaamu ko. jaamu ko. ci sunu yonent bi. ci sunu yonent bi. ci sunna si yonent bi wéetal yàlla wéetal yàlla ak jaamu ko ak jaamu ko ci sunna si yonent bi loolu bi sëriñ bi bàyyi liñ bëggal suñu bopp kon liñ bëggal suñu bopp donc nañ leen bëggal sëriñ man liñ bëggal boppam leen bëggal nee na yàlla seere na ne sëriñ bi liñ bëggal boppam leen bëggal kon mi ngi leen di gën a ñaan nan ko gën a ànd tegu ci yoon woowu rek muy jaamu yàlla ci sunna si yonent bi suñu kem kàttan la cee des mu di taalibe ak taalibe ginnaaw bu nga amee tawfeex sëñ Tuubaa ba noppi. ginnaaw bu nu amee tawfeex sëñ Tuubaa ba noppi. la ca des. la cay des mooy di yéene lu baax di wax lu baax di lu baax di def lu baax suñ kem kàttan te yàlla tax ñu di ko def nee loolu moo di taalibe nee na lee moo di lislaam lii moo di ak taalibe lislaam moom mooy wéy ci ndigal rek taxaw tem ci sunu yonent bi ak taalibe itam mooy yees sëñ Tuubaa yeesal lépp boole lislaam nu boole lislaam ak ub taalibe nag taalibe moom du dara taalibe moom du dara lu di yéene lu baax lu di yéene lu baax bëgg lu baax di bëgg lu baax di def lu baax di def lu baax di daw lu bon di daw lu bon te yàlla rek tax neen loolu rek ci la mooy taalibe neen jërë ngeen jëf te ne mi ngi leen sant nag kii tëji bu baax a baax nee na gis na yitte ji yitte mënu ko weesu jóge fa ngeen nekk jóge fa ngeen nekk ngir yàlla ak Serigne Touba ngir yàlla ak Serigne Touba mbooloo nii nii nii nii ngeen demee. mbooloo mi ñëwee nii ñu ñëwee. takku gi takku gi. ak pasteur bi ak pasteur bi. ak day àndandoo gi. ak àndandoo gi. ñëw fii ñëw fii. ngir yàlla rek ak Serigne Touba. ngir yàlla rek ak Serigne Touba. yëg naa ko bu baax. yow na loolu yëg na ko bu baax. yëg naa ko bu baax a baax nee na yëg na ko bu baax a baax. nee na xolam sedd na ci. dolli ngeen sama yaakaar. nee na dolli ngeen itam yaakaaram. ci doxin bi ma bëgg nu doxi. ci doxin bi mu bëgg nu doxee ko. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. mi ngi ñaan bu baax nag. nee na mi ngi ñaan bu baax nag. dangu leen jëf ji sunu borom nangul leen jëf ji gën leen a gën leen a dolli tawfeex gàttandoo ak tawfeex sëriñ gën leen a gàttandoo ak tawfeex sëriñ Tuubaa waaye gën ban gën a mën a tegu ci yoon ban gën a mën a tegu ci yoon rek te suñ suñ mbir yëpp itam nee na suñ mbir yëpp itam yëpp gën a gën a gën a gën a gën a yomb suñ mbir yëpp gën a yomb gën a gën a gën a gën a yemb gën a yemb gën a yéwén gën a yéwén gën a barkeel gën a barkeel nee loolu rek leen di ñaanal nee loolu ñaanal boppam moom leen di ñaanal itam nee loolu bëggal boppam loolu leen bëggal itam jërë ngeen jëf Thank you. bismillah bismillah Ablaye Gueye am toxal boobu bi la Ablaye xoolal fi ci baaxul bi Ablaye sëñ mu sëñ bi tàllal waaw mu ñaan waaw loxo waaw loxo sëñ bi bismillah bismillah na ñëpp bismillah Hallelujah. sëriñ bi gërëm na ko sant njaboot bi yëpp digal ñu itam tënku ci yoon bi tënku ci lislaam ak taalibe def lu baax wax lu baax nen loolu mu ak taalibe te loolu la sax mu waxoon ne keroog ba mu ci yaral ci Tuubaa dox ko dërëm boobu nga xam ne benn taalibe bàyyi moo ko yëbbante woon na ko faju aaju laa bëgg daf ko doon tegal dërëm bi suuf mu teg mu ne ko boo demee rek nay wax lu baax tey def lu baax wax lu baax def baax lépp lu baax am ci sax mu saa ba ma ñëwee ci xam ne wax lu baax def lu baax manding la jëpp lu baax ci biir su ko defee nag kon loolu la sëñ bi dénkaat ci biir kàddum te yaatu na lool ñuy sant bu baax nag di gërëm bu baax nag taalibe yi ak sëriñ bi tey sant yàlla ànd gi ñu ànd ak Cheikh Moussa Ndax yëpp lii moo ko waral ñu ngi sant bu baax sant sëriñ bi itam nag ci dalal beeg yaatal beeg bëggeel geeg cofeel geeg mboolem ki xam ne yaa ngi ay Cheikh Moussa di yàlla yàlla tey war nga gën a sankaat seen Muntaxa gën ko ñaanal mu yàgg fi ndax liñ bëggoon lépp ci yoonu murit defal nañu ko alhamdulilah ñu ngi sant yàlla baax tey gërëm di rafet baax a baax a baax euh, dalal bi nga xamante ni xalif bi dalal ni ko waa kër Cheikh Moussa Sène Ndiamé borom daaru ñuy ñëwoon fi indi tool bi nga xamante Cheikh Moussa moo ko doon liggéey di ko jébbal euh, képp ku fi toogal Serigne Touba rek Cheikh Moussa jébbal na la tool boobu léegi na xalifaam moo yeble woon euh, délégation mu ñu indi tool boobu di ko jébbal Serigne Mamadou Mountakha Bassirou Mbacké kon ñenn ñu ngi jógoon daaru kër Mor Khoroja Cissé ñoo fi ci dekk sen di Touba ngeen ci ak seen télévision Daaru ci kanam mu leunkelo ci ak Murid TV ak Njàmme TV ak legi TV ñu bokkon nokon média yi nga xamanteni ni ñëpp ñu ci liggéey bi wax deug yalla kon ñu ngi sant baax tay gëreem léegi dal kon euh, dégg nañ kaddu yi nga xamne ne na ci khalifa bi kaddu yi nga xamne ne na ci euh, njabatu Cheikh Moussa gi ñëpp ñu ngi sant tay gëreem sëriñ bi dénkaan na kaddu yo xamanteni moy la Cheikh Moussa dénkaanoon non sa di wax lu baax te diko ko jëf ndax sëñ touba neewon nako dal wax wax baax te diko jëf me nag mépp ci biiram kon xam na ne loolu te wax lu baax na xam na ne dara jiituut ci baatub laa ilaha illallah jëf lu baax dara jiituut ci mooy li ngay jëf nga jëf ko ci tawhid mooy jëf te yàlla rek tax kon alhamdulilah ñi ngi sant bu baax tey gërëm mbooloo mi teew na fi bari nañ ànd ak sëñ Abdourahmane Niang mu euh, jiite ñu ci xalifa bi moo dalal ñu ci dal goo xam ne gu sedd xol la yaatal ñu dalal ñu delloo siaat euh, këll ga doxoon diggante sëriñ Touba ak Mamadou ak euh, sëriñ Amadou Mamadou Khorodia Cissé ak Cheikh Moussa Cissé ak sëñ Mamadou Basirou ba ci ñëwaat Cheikh sëriñ Touba yëpp kon alhamdulilah ñu ngi sant baax tey gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu